pour matérialiser euh, wuyu woote bi nga xam président de la république woote na pour ñu ànd def Sénégal gu set pour ñu ànd def euh, Sénégal sans sans déchets. Euh, nag bi mu amee ñun pour la première fois ñu ngi koy doog a tàmbalee fii coose wuyu ci suñu responsable bu mag bo xamné ni ku ne dotul wax euh, taxawayam ci parti bi dotul wax taxaw dootul naatable taxawayam ci coalition Benno Bokk Yaakaar muy ney Maguette gay mu bokk ko ak monsieur le maire monsieur le maire aussi ñëw ànd ak ñu ci bés bi wuyu si président de la république ci oote bi mu pour ñu am Sénégal gu set té Mbour war ci mëna baña dess ginnaw bu maire bi mu ñëw député bi ñëw population yi ñëw nous avons le DAGE du ministre des finances et du budget muy sunu grand monsieur Guèye nous avons aussi la visite euh, de l'adjoint du préfet nous avons aussi le directeur euh, du CEDEPS de Mbour ñom ñëpp and nañu ak population bi ak wa quartier ak sunu yaay maire Ndiakhate Guèye ak ndaw ñi ñu and ak ñun ak responsable bloc yi nga xamante ne président de la république am na ko ci commune bi muy ndaw di góor di jigéen euh, ñu ànd ak ndey Maguette ñëw fas yéene setal fi nga xam ne moom mooy tey coose fii ñu taxaw mooy koñu imam donc loolu rafet la loolu day wane rek ne ànd nañu ak président ci gis-gis bi te fas yéene nañu weer wu nekk ñu dem quartier bu nekk ci benn benn quartier ci biir mbuur ànd ko ak population parce que Sénégal gu set mën na nekk euh, mbuur gu set aussi mën na nekk. waaw yëf yi moom dañ koy ñaawlu ndax violence àndul ak dara te lu dul jàmm jàmm ko gën. te ay frère lañu ay sœur lañu jàpp naa ne ñun ñi nga xam ne ñooy njabootu Macky ñoo war a joxe exemple bi d'abord président ku ko xam xamoo ko ci violence ku ko xam xamoo ko ci wax ju ñagas euh, nit la koo xam ne ku yaru la ku am teggin la te li mu woote mooy Sénégal gu set Mbour nak amna danaka daanaka fukki quartier ak ñaar ku ci nekk mën nga xey dem ci benn quartier balé ko parce que benn bés rek Mbour mënu ci set dañuy continuer li nga xamné moy initiative bi moy appel bi président lancé pour un Sénégal propre ñu fas and ak euh, kilifa yi nekk ci réew dëkk euh, dëkk bi and ak jeunesse bi and ak famille ak population bi en général fas chaque euh, mois ñu dem benn quartier jéem koo setal naam set bi dina jafe mais ñu am euh, cawarte gi ak mbégte di ko def te jàpp naa ne loolu la président woote mais xuloo ak xeex mën naa ñàkk ci ñoo xam ne ñoo bokk benn gox bi ñu ne ñoo bokk ki ñuy jàppale te ku ci nekk mën a am gox boo mën a dem pour bale ko ndax ñun tey ji fii nga fii ñu nekk nga fekkuñu ñu fi ñu ngi bale si jàmm ak salaam ànd ak ñi ñu war a àndal te dara yëngatuwul